Senelec Senelec moom foog ñu wax ci woyofal ñépp wuti woyofal nga yeewu boo doon fay trente mille ñu ne la soixante mille lu tax ñu ne la non tàngaay bi la ab benn ventilateur lii may wax ñun ñii toog fii yépp xam nañu sans explication kilowatt bi nga xam ne boo ko boo ko jëndee comptant c'est moins cher que boo ko leb du loolu de monsieur le député say façon explication bu kenn xamul lu mu doon lañu dégg mais au fond le gouvernement ce n'est pas son problème président Macky Sall pare na moom li ko soxal mooy candidat bii nga xam ne nag mooy doon troisième mandat am comme nee na ko mu ma toogee rek mel na ni yaa toog président bu ma toogee rek daanaka yow la loolu moo ko soxal ñun soxaluñ ko de ñun ñi kon nag taxalikoo candidat boobu midi pile moom la war a def midi pile ñu taxalikoo moom.